ma dégg ñu ni mburu day mburu du yokk mburu du kii mais est-ce que xam nga ni depuis vingt trois ans mburu musul yokk xam nga tax ma ma demantaloo mm-hmm. en deux mille un saako farine mi ngi jël douze mille trois cent vingt mm-hmm. ngeen ñu wax ñu poids bi deux cent quarante grammes la mburu mi ñu ko jaayee cent trente cinq en deux mille un di lu baax au même moment maa ngi jëlee sama mille litres gasoil à quatre vingt dix mille francs mm-hmm. donc deux cent trente cinq grammes nga ñëw nag septembre 2001 TVA bi jóge 10 pour cent dem 18 pour cent. mooy dañuy harmoniser avec l'UEMOA. donc dem 18 pour cent Sénégal tànn 18 pour cent donc njëgu farine bi dem mille cent 216 booba état bi jógee 235 grammes wàcce poids bi 100 225 grammes donc. loolu lañ as poids bi lañ wàññi foofu. ba pare ni ok jaay nañ 150 donc foofu mburu mi ngi stabilisé ba léegi. ñu dem. loolu di continuer deux cent dix bu ñu demee nag léegi nag décembre deux mille mi wàcc waat poids bi deux mm-hmm. bi yokkat yokk nañ farine bi de. dañ yokk dañ yokk farine bi wàññi wàññi wàññi poids bi. mais justement loolu laa lay wax moo tax man la. ñun justement dama la expliquer dama la su ma nee. Mm-hmm. quand je dis quand les gens mburu du yokk mm-hmm. du ñu xeex naan ay da yokk la ñun mënuñoo yokk yokkuñu on n'a jamais demandé la hausse du prix du pain mais dama lay bay expliquer nii pour sénégalais yi xam ni lu ñuy demander c'est légitime dama ni 23 ans mburu musul yokk mu la lay démontrer nii 2003 mburu mi farine bi dem cent 14 691 ñu wàññiwaat poids bi cent grammes ñu ni jaay leen ko fanweer loolu di lu di law ba ba ba juin ba ba ba juillet 2007 ñu yokkat farine bi septembre 2007 à 20 000 et quelques maintenir poids bi yokk ñu juróomi dërëm fekk diggante boobu gaz base 90 000 di évoluer nekkoon na ay trois cent 300000 après dana gasoil haute taxe la waxuma gasoil bi nga jël si pompe bi te boulanger béy si pompe bi lañ jëndee yenn yi. léegi nag ñu ñëw nag 16 janvier 2009 ñu yokk fa farine bi wàññeeku 1000 francs ñu del bàyyiwaat prix bi 210 grammes wàññi nag mburu mi encore 160 francs yaa ngi comprendre. Mhm. wàññiwaat na mburu mi coow li metti ñu koy wàññi 160 francs août 2009 ñu mu jógewaat si 160 francs delluwaat si 150 francs mais farine bi wàññi ak quatorze mille boobu c'est fii du fait de la guerre entre les meuniers léegi pour vous donc di ngeen xoole évolution bi on diminue le pois seulement ba tey jii mi si deux cent grammes demoon na sax ba cent quatre-vingts grammes mooy cent quatre-vingts grammes bi ñu ko nekkoon en treize septembre deux mille dix dañu wàññi mburu ba cent quatre-vingts grammes mburu bi nekk fanweer c'est-à-dire que mburu fanweer cent trente-cinq fanweer cent soixante-quinze loolu mu ngeen gis mais nag boobaa ñu jóge woon si deux cent quarante grammes di leen wàññi wàññi ba tey si deux cent grammes. Mm-hmm. kon mburu musul yokk. Mm-hmm. kon boulanger yi ñoo yey wax askan bi mu musul yokk. mais mburu mu ngi wàññeeku. waaw mooy mooy loolu c'est-à-dire que moo tax léegi nag. waaw léegi nag waaw léegi nag euh, mooy avec la tension économique ñu def régime d'homologation du pain après 2007 ñu def homologation sur le prix de la farine. il faut quand même ngeen xam ngeen xam. situation on dépend du marché. mais c'est normal dama ne la bu la changement habitude alimentaire sénégalais mënoo xëy rek ni du ngeen lekkati blé mënul lekkati te blé dafa am plus de 3000 variétés de blé mën nga bay fii blé boo xam ni vraiment c'est pas c'est am na fi bay ah. mais hmm. quantité bi mënuñu ko bay ba mu mën a satisfaire. da ngay def substitution substitution boobu lañ soxla. substitution pour dire donc pour ah. conclure pour dire que. pour hmm. le prix du pain n'a jamais subi une hausse au Sénégal dañuy wàññi poids bi te nag leen moo am jafe-jafe boulanger fu mu gën a méttee soo ma wàññilee poids bi nga jóge ma deux cent quarante nga ne ma léegi yaa ngi si deux cent grammes benn saaku farine mas doon am supposons trois cent ba muy nekk deux cent quarante mas doon am deux cent vingt mais soo ma ko defalee deux cent grammes mais damay def boobu trois cent laa si am mais boobaa léegi tu as augmenté mes en termes de personnel ba pare sama charge en terme d' enfournement maanaam tey la ngay dugg si four bi. Mhm. day gën a yokk maanaam temps bi. Mhm. ba doon def benn sac nga liggéey ko si 10 minutes supposons si 20 minutes si four bi 15 minutes si four bi léegi tu vas mettre 30 minutes donc tu as augmenté l'électricité yokk sa gasoil pour lakk sa mburu mhm. donc le fait que nga wàññi poids bi rek yaa ngi yokk charge boulanger bi. voilà la certaine technique mais ñun xam nañu jafe yooyu xam nañu le poids du pain xam nañu askan bi ñu gën a bëgg si ñun leen. nañu xool état bi yan pexe la ñuy def pour que askan bi bañ a mhm. mais boulanger yi aussi bañ a souffrir. Mhm. parce que bu état nee mburu c'est un produit homologué. Mhm. dama jàpp ni boulanger bu nekk boulanger dama dama boulanger buy def calcul boulanger boo xam nag léegi doo fay impôt doo fay IPRES doo fay caisse sociale doo fay taxe kooku bu la neexee nga ne mburu du yokk. mais ñin légal nekk ci norme boobu. mais ñooñu dañuy souffrir. ma mais il faut ngeen comprendre le système. ñun nag on est des légalistes. Mm. ay waya waya yooyu ko.